yoo xam ne dañoo farak nguur gi am way politique yoo xam ne dañoo contre nguur gi am ñoo xam ne ay techniciens lañ am ñoo xam ne ay syndicats lañ am ñoo xam ne faruñ fenn ak ñoo xam ne dañuy défendre consommateurs yi. comité boobu nag euh, li nga xam ne moom la njëkk a wax mooy mi ngi massaw di jaale képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi am ku feebar. wala am koo xam ne dafa wàññeeku ci feebar bi looloo tax bi ñuy commencé ñu def minute de silence ci loolu di massawu itam ñi feebar ndax am na koo xam ne ci ñun la bokk te feebar bi daloon na ko ñu ngi koy massawu yi tamit di ko seet ah, di ko encourager pour mu gën a góorgóorlu yi tamit fexe ba lépp loo xam ne jafe-jafe la bu nekk ci moom mu deñ ci biir loolu nag ñu gis tamit ne liggéey bu diis la

Ben fay duñ ko laal ñu ko ci communiqué boo xam def réunion réunion 30 avril loolu pour ñu finde ko ba def ko ci communiqué mooy ne dañ rek ay wax yu sew am te wax yu sew sax am ndax am am lañ ñu doon fay tam wax amul amul général bi wax na ko li nga xam ne moom lañ bind ci liñ ko taxawul 1000 francs nga jël sa famille kii mooy ji lii la ñuy jënd ceeb lii la ñuy jënd francs nga jël 1000 francs ne comme kër gi nit la kenn francs divisé par 10 muy 100 francs ana courant ana ceeb ba ana diwlin bi loolu moo indi erreur yi waxi 3 millions ndax waxi 3 millions sax mu suñ ko wax ci biir réunion bi kon li nga xam ne moom lañ mën a tënk ci wax jooju ci rapidement mooy ne wax la joo xam ne amul tey amul ëllëg li am ba am mooy ñi fi nekkoon ñëpp ba ñu réunion lañu wax mooy kenn du laal dara kenn du utiliser dara loo xamante ne bii ay per la wala ay payor yoo xam ne ñu ngi koy fay ñi nga xam ne ñooy membre comité kon ñu ngi liggéey bénévolement liggéey bi nag bi nga xam ne moom la war a saytu dafay yaatu li ci gën a siiw mooy ceeb diwlin suukar bi ak saabu yeeg ñoomin seen li ñuy wax kit alimentaire yi waaye du loolu rek am na loo xam ne moo jëm ci ndimbal yi ñu war a dimbale entreprise yi ngir ñu mën a fonctionner am na loo xam ne mi ngi jëm ci lépp loo xam ne dañ koy jox way consommateurs yi moo xam ci courant bi moo xam ci ndox mi am na loo xam ne tamit moom moo yor lépp lii nga xam ne moom la état bi war a def pour que dara du manqué moo xam hydrocarbure moo xam lépp lu ñuy soxla ci ay masque ak équipement médicaux maanaam lépp daal loo xam ne approvisionnement la mbir mi yor ko euh, décret bi nag dafa wax ne li ñu war a def mooy saytu lépp xool lépp buñ ko xoolee ba noppi tënk ay rapport yoo xam ne dañ koy jébbal ki nga xam ne moo ñu sant liggéey bi muy chef de l'État waaye nag loolu itam buñ koy def dañ koy boole itam di informer population yi ndax dafa am lu ñuy wax devoir de transparence mooy fexe ba mbir yi leer yépp leer li ñuy dugg leer li ñu koy liggéeyee leer loolu moo waral waxtaanu tey bi ñi nga xam ne nag ñoo ñoom lañu war a jox mbir mi ñu ci bari yeyoo nañ ko lool moo tax xaar yi bari moo tax jaaxle yi bari retard nag am na ci mbir yi ci liggéey bi nga xamante ne bii moom mooy distribution constaté nañ ko dinañ ci def suñu rapport jox ko ki ñu ko war a jox ni nga xam ne moom lañ séddalee ceeb yi maanaam dafa am ñaari liggéey yoo xam ne moo nekk base bi benn bi mooy registre national unique muy li nga xamante ne bii mooy liste bi nga xam ne moom lañ prévoiroon ne ñii kat ñu néew doole lañ waaye xam ngeen ne list boobu nit mun naa néew doole tey bu subaa mu situation am tane looloo tax liste la boo xam ne quartier bar quartier lañ ko war a dañ ko di ko saytuwaat di ci seppi ñi ngi ci war a seppi ak beneen liste boo xam ne moo koy complété muy liste bi nga xamante ne bii. képp koo xam ne boo bokkoo woon ci liste national unique boobu nan la ñuy def pour dugal la waaye nag su fekkee un million de ménage la te sénégalais yi nekk quinze million un million de ménages yépp suñ jotee itam dina am ménage yoo xam ne duñ jot constaté nañ nag ne ñi nga xam ne ay way lañ moo xam laago ci euh, ba ci bët wala ci làmmiñ wala ci euh, cër wala lu munti doon Bok nañ ci ñi nga xam ñi ngi laaj ne dañu wara bok ci mbir mi ba taxna ministre bi nga xam mo yoré mbiri di Mansour Faye néna na président dina yok 100000 ménages ci 1 million de ménages pour que ñoo ñu mun leen jël en charge kon nek na lo xam aussi suñ ko mettre en œuvre dina dimbale ñi nga xam moy mooy wàllaago yi beneen jafé jafe bi nga xam mo moo am i tamit bu fekké ni ñew nga ci quartier. nga am ci téeméeri ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te liste bi nga xam ne moom lañ jaglelee quartier ba nekk juróom fukk ak ñaar bu boobaa ñi ci des ñëpp duñ am looloo tax mairie yi di nga jël ñoom itam def seeni manin di yëkkati ay ndimbal di ko jox ñi nga xamante ne bii ñooy néew doole waaye ndimbal yooyu bari na ci yoo xam ne du mun a toll comme ni nga xam ne moom la état bi di joxe ndax état bi ñaari saaku ceeb lay joxe. fukki kilo suukar fukki litre diwlin paqueti saabu ak fukki kilo pat kon léegi légui tam confusion day am ndax dina am ño xamné dañuy gis né ñun kat liñ ñu jox dafa gëna neew li nga xamné mom la état bi joxe kon nu ñuy bàyyi xel ci lool ah li nga xamné nak moy mooy liggéey bi ñetti préparation def nañ ko def nañ ko ci ni ñi liggéeyee ci ni ñi sayto ci ni ñi doxalee dem nañ itam fépp foo xamante bi décision war na faa jóge ngir doxal li nga xamante bi moom mooy force Covid 19. des nañu nag ñu dem fi nga xam ne mooy ministère des finances pour itam xool li nga xamante ne bi moom mooy yor lépp loo xam ne mooy alal ji war a jógee ci état bi jëm ci entreprise yi jëm ci baal gi ñu leen war li nga xam ne mooy yi.

muy force comité de suivi force Covid 19 noonu nga koy bindee pour que képp koo xam ne yaa ngi ci réseaux sociaux yi di nga mën a xam li ñuy def am na yi tamit li nga xamante ne bii moom mooy numéro WhatsApp boo xam ne mooy 77 333 00 75 boo xamante ne bii ku ci dugg itam di nga mën a gis li nga xam ne comité bi mu koy liggéey su ngeen gisee nag comité bi jublu ci loolu yëpp mooy comité bi bàyyiwul kenn mag ak ndaw. ñëpp la bugg lépp la nga xamante ne bi ñu ngi koy def mu leer ndax ndaw yi bari nañ nekk ci réseaux sociaux yi looloo tax tamit comité bi am ay mbir ci li nga xamante ne bi moom mooy réseau sociaux yi fi may jeexalee rek mooy comité de suivi ginnaaw saytu bi bokk na ci li muy xalaat nan lañ mun a proposer ay solution yoo xam ne bu mbas mi passé Sénégal gën a continuer di om Sénégal gën a continuer jëm kanam ak yan jàngat lañ mën a jàngat ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy mbas mi nan lañ mën a def ba génn ci loolu mooy li nga xam ne moom la comité bi ne woon dina ko séddoo ak yéen ah, di wax ne nag bu rapport bi paree incha allah dinañ ko jébbal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi te rapport boobu duñ bàyyi dara lépp loo xam ne lu ñu war a saytu la danañ ko saytu bam leer bind ko defar ko proposer ci ay solution ak ay décision pour ki nga xam ne mooy njiitu réew mi